di sante assistance bi fi ñëw yëpp ñu woote woon fi tey fii pour publier ñaari livre dëggu Sénégal ak melokaan ngeen di la moo tax ma bind melokaan ci Abdoulaye Dieye ma ne parce que kii dama ko bëgg ci sama xol c'est quelqu'un que je respecte beaucoup franchement pour ay actes yu baaxam parce que il est humble di def ay social ci dëkk bi et tout defuma ko pour dama si wut xaalis defuma ko pour dara mais dama ko def tout simplement pour wane cofeel gi nga xamante ni moom laa am ci moom en plus tamit pour encourager ko lolou mom motax ma def ko so gisee aussi tamit ma bind debu senegal dama bind Senegal d'une manière générale avec thème yu bari plus de 55 thèmes dama ko faté sax mais sama encadré dama wax ni 55 yi. ya mujibu la ya mujibu mom ñep xam ni lu bax la en plus ñu commencé ko bismillah jeexalee ko sayyidina mohammed kon lolou am na solo ma bind debu senegal defuma ko nak parce que dama ko bind ni Senegal. dafa tok non non waxuma debu Senegal. pour ñin ñi di xex ak yoy mais damaa wax dëggu Sénégal pour ñaaxaat jeunes yi ñu gën a góorgóorlu ndax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te lu ñëpp bokk mayonnaise lay doon ku nekk da ngay ñëw rek càpp ci mais kenn du ko omelette. bind ak liir dafa tumuranke parce que ñun bu ñuy wax sax ñun ay xale Facebook lañ ñuy wax xale digital. cela veut dire que ni ñun amuñu temps wu sax di liir fu ñu fekk ñu ngi ci WhatsApp yi. li may conseiller sama moroomu jeunes yi di ko conseiller élèves yi aussi. parce que lecture dafa bax daf permettre ñu mën français daf leen di permettre ñu bind français. da ngay verbe complément bu jub sax du ko mën. loolu li sabab lu bari sabab fi di parce que liifantu dafa baax ci ndongo daara dina permettre mu am fasaaxa di wax permettre mu am di kon cela veut dire que ni loolu dafa dafa di di ci ñaax tamit mag ñi. té lolu dafa nek lo xamné dafa commencer désœuvrer. donc tay buñu amé occasion bi gis ne y a un jeune bo xamné dafa engagé wu sur la promotion euh, du livre et de la la lecture dafa melni ñëpp lako défal mais aussi li ci gëna gën marqué moy euh, sens bi nga xamante ni livre yi moom lañ am d'abord moy debout Sénégal retracer le Sénégal dans sa dans sa globalité donc képp ko que information du Sénégal sur tous les plans bo livre bi di am culture aussi di nga am ay mais aussi mu euh, donc je pense que ma modeste personne euh, bind euh, je pense que dafa bëgg rek magnifier les valeurs yi nga xamante ñun sénégalais yi la incarné donc je pense que ni euh, du du valeur yooyu man rek maa incarné. donc ñu koy encourager di ko remercier diko ñaanal yalla. livre bi aussi yalla na am succès ba nga xamanteni day nekk rek ndamu Thiès mais aussi nekk ndamu Sénégal ñep mais également nekk euh, ndamu ak fierté toute la jeunesse de caisses. Euh, un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle te bibliothèque livre donc nous ñu ngi ñaax nit ñi. ñu frère. Arsène osé pour bind. parce que xam-xam bu diplôme. nous tous nous avons des talents cachés. yow yaay développer potentiel pour pour pour développer donc nous la promotion de la lecture et du livre